ku amul fulla man am naa fulla ku amul fayda man am naa fayda nee naa leen doomu aadama boo xam laa li may wax dama koy wax pare ci jàll ci leneen soxla loolu may retourné nit bu am conviction laa nag nit bu am ngëm-ngëm laa nit bu darul ébranlé laa bu dara ébranlé nit bu dara ébranlé wul laa man noonu laa mel donc nit bu am conviction laa quoi nit bu am ngëm-ngëm laa it nit boo xam ne dara ébranlé wu ma dara yëngalu ma li may wax bu jant bi tolloon fii dama koy répété li may wax bu suuf si doon xotteeku dama koy répété li may wax bu asamaan si doon jaayu dama koy répété te lu may wax du deñ fi ma ko jàpp nag foofu la mu bu leen inquiété wu chaque chose à son temps dinañ leen jox samedi numéro Gabriel kan dinañ wax tamit parce que lu tax ma joxuma leen numéro Gabriel Kane parce que damay xaar tey la gisante ak Macky Sall ñoom Tunkara dem nañ Washington li ma leen waxoon am na lépp am ne naa ne Gabriel Kane accident yi ay kac dem na jël na avion am le douze boobu ci guddi dem na jaar New York mi ngi Washington tey la war a gisante ak Macky Sall loolu am na Gabriel Kane nekkul fi mi mi ngi états te ñoom Tunkara demon nañ fa taxaw contre vents et marées di xex lepp waxon na len ko lepp aji sar bu ma leen joxee numéro ba <laughs> bu ngeen wote gis ngeen te ni ma leen xamee am na détails xam bu ko sax gaay dañuy japp kan la dégg na len ñom ñi parce que fima laal la waaw na Gabriel kan ko jox ñi Gabriel kan joxuko ko man ba waxuma Gabriel kan mako jox te Gabriel kan aw ma ak mom réalité man moom moom duñ nuyante séquñu dara dara dara daara dara ñu bu ma leen déggee ñuy débat du ma ci nangoo ñëw ay wooy Gabriel Kane ko jox Gabriel Kane jox ko ko kii ma ko jox kër ga kër ga boobu kër googu la kenn mënu ko dindi numéro boobu numéro am la am na détail yoo xam bu ma ko waxee rek ñu xam kan la mais lu ma leen wax takk leen ko téere du deñ yàlla suñu borom subhaana wa taala rek a tax may wax Sénégal fii du ma wax luy dindeeku adduna senegal gii ku ne vaar nañ ko sauf man bu ma juddoo ba léegi si sama nday kenn musuma vaar kenn musuma vaar laa teg ut laa may ut man Mollah Morgun doomu aadama yaay juróogul doom Sénégal mu vaar ma te li may wax lu dégg dayo lu kem taane maa ngi koy wax avril ba léegi di teppeeku suufa ngi yëngu géej gi di baaw naan asamaan si di xotteeku maa ngi taxaw di wax même chose kenn musuma vaar te lu ma wax waay dem fekk ko fa gis nga ni ni mu leen jaaxalee kan mooy renseigner Macky Sall kan mooy renseigner Ousmane Sonko ni mu leen jommale kan mooy renseigner Pape ale noonu la leen jommalee kan moo may renseigner mun naa la wax démb guddi aji saar bi yépp bu may laay bu ma waxee ci saase téléphone yi foofu lañ génnee Adji saar dugal ko ci 4 x bu weex yóbbu ko à côté Adji Sarr fanaanul fu mu fanaanoon man du may weranteeg ay cagaak yooyu de ñu may ay mati trois pommes du ma weranteeg trian de sàcc mati trois pommes da ngeen koo xamul de sàcc moo ko fi génne woon Sénégal sàcc mun naa leen liiral ngeen xam kan mooy mati trois pommes vite fait nag aw ma jotam aw ma jotu mati trois pommes te du man maay euh, weranteeg mati trois pommes man loyal sama CV musuma dugg kaso musuma triandé musuma sàcc moom sacc mook fi jëlee sàcc ñu jox ko tëj ko ci kaso mu dugg kaso Mati trois moom prisonnière la woon kaso liberté 6 mënote nañ ko moom ñoq nañ koy mën a dugal ko ci oto weewee dugal ko ndax sàcc Mati trois moom emprisonné man du ma wax ak kooku du ma wax ak sàcc du wax ak mi nii boo bindee Mati trois ñu ne la escroc Mati trois Mam Matifal, alias Mati Troapom, a été jugé hier par le tribunal des flagrants délits pour escroquerie. Nous tête côté Kassoba. Nous triande, mini. Mati Troapom, de son vrai nom, Mam Matifal, avait prévu d'organiser une soirée sénégalaise, Jaim Visa, à Dubaï. Soirée, dans le courant du mois d'avril, en collaboration avec Ndai Aoudioub, qui vit sur place. L'animatrice était chargée d'assurer la publicité le sponsoring, entre autres, face à des difficultés d'ordre financier, elle a fait appel à l'agence de voyage Transair pour bénéficier d'un prêt de 23 billets. Le bon de commande avait comporté la signature de la chaîne CNTV. Mati 3 pommes, Alalgi, une valeur de 14 millions de francs CFA Les ko amnion am ñoo de visa da leen jaay visa demuñu avons porté ko plainte dañu teg mu 14 millions de doomu à ba millions L'agent immobilier Adam Soare a déclaré devant le juge que Mati a imité sa signature de imiter sa signature car il ne lui a jamais remis un bon de commande C'est archi faux Mati trois de imiter sa signature sàcc la triant la trafiquant la falsificateur escroc man CV vide vierge kon di escroc falsificateur de documents administratifs vendeur de visa ñu noq la ci kaso bi tej la ci kaso bi dóor lay monot kooku ñëw tey jii daw ñu may ko liberté provisoire mu buddi daw dem for ab màggatum tubaab takkanteeg moom toog kon kooku bu demee day jéem a fexe nu mu neexalee Macky Sall pour am jàmm bu mu fi génnee boobu ñëw na fi xam nga nu fi ñëwee Doro Gaye ko fi jàppale moo ko jëndal billet moo ko lijjantil ba mu ñëw ñëw na Sénégal Doro Gaye nawet bi Doro gay jox ko ay moto pomp mu maye ko du 14 million la sàcc Doro Gaye may ko ay moto pompe mu jël ko maye ko foofu noonu pour mun a wane ni rek bu ñëwee kenn du ko jàpp Doro gay lijjanti lépp moo ko dimbale moo ko sauvé ba nokk ñu ko ci kaso bi mais <laughs> loolu ba léegi kooku kon kooku se normal ñoom dañuy liggéey moom dafa sàcc fii teg dil jaay visa Nous, ñum yobbu Des escroquer faux signatures, mais nous top ko mi ngi escroquerie devant la télé c'est 100% people mais émission bon. mais c'est pas 100% people c'est 100% escroquerie mi la dame a reçu 7 millions au lieu de 10 millions mentionnés par ses confrères il m'a parlé d'un virement de 5 000 euros. Je ne lui ai encore, je ne lui ai encore, euh, je ne l'ai pas encore reçu. Il a sûrement entre le soleil et la terre. Il, a, il, est sûrement Il arrivera peut-être dans 400 ans. La somme de 20 millions. venir réclamer préjudice pour l'homme une préjudice de 20 millions de francs Bon ko donc Mati Trois Pommes ñu may ko ñu génn ko ci kaso bi liberté 6 jox ko liberté provisoire ci la ne waree daw dem Belgique taxawaalu foofu ci mbedd yo jom mi ci rasta naaw mu wut fa tubaab jàpp ci jëfandu ci wut ca këyit ñi muwul dem Sénégal xool xool mu dëgër ci kaw mu commencé waa Macky Sall la yow di koo violé eh, wax dooro dooro di wax ak moom calmement ah, da koo violé man maa ko wax da koo violé ak ci saar pour mun a dem Sénégal calmement toog na fa ba ba ba xotteeku ca kaaw ba mënul dem ni c'est la première fois bu mu sàccee ba daw c'est la première fois mu dugg Sénégal kooku aw ma mu du ñu nawle man kenn mënote wu ma moom mënote man escroqué wu ma moom dafa escroqué ay million la sàcc ay ay ñu jël seen seen xaalis joxu leen visa ñu toog fi mu daw sàcc man ab sàcc escroc falsificateur de signature de faux usage de faux mais lan ngeen ngeen bëgg man ma wacce sama bop di wax ak ab sacc ab fen kat escro moy fen kat ko xamni da nga togon fi ñu nok la ci kasso yi nga yeewu ci kasso yi di génn ndax keri <laughs> day bay du pasti dulu bay du pasti romé bokku ñu donc buñ leen indi duulu géey ne duulu bay bi ne ne pasti bi kaay xuloog duulu bay bi munul ne Mati Trois Pommes bu doon wax suba ba xotteku du ko tontu parce que du sama nawle dañ ko mënote mënote mu é o wu ma ñu nokk ko ci kaso bi man musuma dugg ci kaso moom moom moom certificat euh, euh, lu mu tëriti pénalam viergeul man dafa vierge ah, euh, dañ ko bokkuñu dama leen di comprendre Gabriel Kane SDF mu ñëw que kii pour mun a toog Sénégal kii moom dafa escroqué fii sàcc ñu indi ko mu mu fexe ànd ak Macky Sall pour buñ ko tëjee ci kaso toppee wuñ ko loolu xam nga ñun amuñu justice dañuy traîner des casseroles donc pour raxas ko il faut ñu ñëw xeexal ànd ak sa casier judiciaire am vierge casier judiciaire am vierge mati trois pop donc bokkuñu man aw ma jot tontu loolu yéen boo leen amee jot dem leen dem da ay nit nitu kaa ngeen am na ay nit yoo xam ne ay nitu kaa la nañu wër rek nañu wër rek te man chaque jour ma leen l yàlla bàyyi leen di ma yónnee yooyu ay nitu ka ngeen yeen yeen da ngeen am jot da ngeen am temps dafa am nit yoo xamni amuñu ben ben ndirign dañoo am temps tok 99% di suivre ñep bu mati waxe ñu ñëw ki jël yoni wa mo la xoolal mati wax na la li di xaar tontu amuñu lu ñuy def l'oisiveté c'est la pire des vices nasarani ñu wax lol de du man nee na l'oisiveté c'est la pire des vices mune nit bu am jot baxut moytul nit bu am jot dafa am ñoo xam ne ñi ngi Sénégal wala ñi ngi bitim réew wala feneen c'est des Sénégalais dañoo am jot